برهام باء وراء ألف ثم ها ميم مجل فيض تيجان جخن نينان Voilà. Il est en direct aéroport. Nigéria ñuy préparé pour dem Nigéria euh, chef de protocole Cheikh Tidiane Niang mais Roq Niass mu ngi nii gis nga ma Abdallah Seyda Mariam mu ngi nii Ahdan seet suñu seetu Hassan Cissé mu ngi nii euh, Hassan Niass la ndax yaay moo sant Muhammadin Mamun Mustafa Happiness Muhammadin Mustafa Sisse Ah, God, ah, God, somebody, yes, yes, yes, yes Sharif Sharif وكينك استاذ استاذ بامانكني استاذ بامي mim, cheio. you know não há mere mei commence nañu دم كاين سما كوزالا وهذاك سان تي في اه وهذاك سان تي في يجي ليش ايرابور قدام نيجيريا mooy gàmm gu mag gi gàmm gi nga xam ne moom lay nit ñi di wax saa su nekk mooy lan Mawlana Cheikh al Islam El Hadj Ibrahima Niass mi nga xam ne moo wër àddina moo defar àddina داخل ميوك الاسلام اك لي ميوك طريقه جان وكاي مولانا شيخ ابراهيم موتاخ نك كم نيجيريا كي دم نا بوبال ني يينن كم يو خامني واخنا ني دم كتب محمد الامين ابراهيم انياس دم نا فيغا خامني موي كامو بن نيوم تامي داني مولود الشيخ ابراهيم انياس بي واي غيس نين ابيجان دوم تامي داف نانكو تي داف بو ري بوبو Nigéria tamit ñuy dem tey wax dëgg yàlla kon maa ngi wax ne Cheikh Ibrahima Niass ci àddina bi commencé nañoo yeew bay ñëw ndax ren ci gàmmu Taïba Niassène gi liggéey biñ ci liggéey ak jëf kuñ ci jëf loolu rek moo lay won na la liggéeyal na lislaam ku lislaam yàlla fay la gis na li ñuy duggee ci biir aéroport bi délégation bi yëpp daanaka ñoo ñoo nekk biir avion bi parce que ñun ñii rek la ñuy duggagun ci biir avion bi ci nga xam ne des na beneen bi nga xam ne moom retraité la ñuy ñëw boobu des na waaye ñun ñun ñu fi nekk mat nañ lu mat soixante-dix la yaakaar naa xaw ma soixante-quinze personnes yoo xam ne ñun ñëpp dañuy dem ci li nga xam ne mooy gàmmu Mawlana Cheikh Ibrahim bi su ko defee mercredi incha allah Cheikh Mahi Ibrahima Niass ak Serigne Bey ak ñoom ñëpp danañ jóg pour dem ñoom tamit ci li nga xam ne mooy gàmm ga bul fàtte ne kanu foofu la Baye demoon foofu la buuru kanu nekkoon buuru kanu boobu waxoon Cheikh Ibrahima Niass ne ko yow yàlla ñaan naa la yëf yi may ma ma nekk buur ma aji màkka te su ma demee yàlla naa fa gis sama wasila ba muy wax loolu ci kaaba gi Cheikh Ibrahima ne ko soo ma rombee dootoo ko gisati loolu nag moo ubbi tey Nigeria ba tey nga xam ni waxuma la Nigéria mu ngi nekk cent soixante millions li nga xam ne mooy habitat waaye gis nga ne quatre-vingt-dix pour cent yëpp da ngay gis millions yi dangay gis ni ñëpp taalibe Mawlana Cheikh Ibrahim la noonu la bàyyi mel ci Soudan noonu la bàyyi mel ci Burkina Faso noonu la bàyyi mel ci Niger noonu la mel ci libi noonu la mel ci Mauritanie ak Gambie kooku mooy Mawlana Cheikh Ibrahim kon mbokk yi seetaan tey kon nu ma leen ko doon waxee ndax su may wax ci baay damay xaalu damay nekkaat beneen nit ndax xaw ma ku dul baay gisuma ku dul baay Cheikh Ibrahima Niass rek moo leeral samay bët leeral samay kanam leeral samay gémmi moo tax su may wax ci baay du ma mën a noyyi du ma ànd ak sago ndax loolu yëpp lu may dugg xaal la moo tax ma wax leen ne leen dama ko defee woon daaw ak daawaati jég ak daawaati daawaati jég noonu laa koy defee ren dara du leen raw incha allah dana neexe yàlla dinaa leen defal lépp ngeen koy gis ci zaahir ak ci baatin ok let's go okay yeah allez pour les enfants waaw xale lañ xale soo ko gisee dañ koy xajal lu dugg lu njëkk a dugg moo tax ma ne ko nañ bàyyi xale yi ñu jiitu di wax ne dara du leen um incha allah ya rabbi suñuy dem rek ba yegg incha allah lépp luñ ci war a wane rek dinaa leen ko wan ba ngeen gis waaw tey nag moom euh, gis ngeen nu ma defee ci dem Nigéria bi def rek lu simple wan ko sama gars yi nii rek laa ko defee mu simple euh, noir bi def ci ay kabin yi wàcce def ci dàll yi laa ko defee te wax naa leen ko nee naa leen lépp lu may sol maa ngi ñëwal sama bopp dama am sama société di ko publicité waale taaliba bàyyi ñu xam ko ku soxla ci sama drap yi wala sama yére yi sama société la maa ko def incha allah soo ko soxlaa ñu defal leen ko. mi ngi yéeg mi ngi yéeg mi ngi yéeg waa Kër Baay ñoom ñooy yéeg noonu voilà waa Kër Baay yi ñooy yéeg noonu ñoom ñëpp ñoom ñëpp ñu ngi yéeg ñu ngi yéeg ci xol bi di dem pour jéem a pour jéem a dem. gannaaw dañ koy tere ci avion bi loolu gis naa ko Sénégal lañ ma ko waxee kon nag maa ngi arrêté en direct bi incha allah marathon uxra. barhamu baun waraun alifun thumma ha mimun mujjal faydu jox ñu ñuy naan thank you